سرمدا ومني تقبل بمسعاي واحمدا yooru màggalu Touba téeméer ak fanweeru édition bi Touba mi ngi fees dell biir jumaa ji ak biti jumaa ji talibé yaa def sen ziar ci khabru bu Serigne Touba Mbacké khabru Mouhamadou Moustapha di premier khalife khabru ki nga xamné ne fi andi tay màggalu Touba muy Mouhamadou Fadal Mbacké ah khabru Serigne Saliou Mbacké ñëpp ñi ngi dugg ci xabru yi di ziar di ñaanal Sénégal agence de presse sénégalaise di len wan lepp lu fi tukkee ci bis bi yor-yor gi également di len wan itam julli juma gi nga xamné ne yi ñu ngi koy waaj. boo duggee si jumaa ji ñu ngi jàpp di yeesalu di waajal julli jumaa nga xam ne dafa tombee tey jii ak màggalu Touba. ñu fas yéenee sant daal sant yi góor ci ak bëggam daal na koo xam moom féete na féete nañu fépp koo xam daan képp ku xool ci moom da am jom da nga a muñ danga nga sax ci lu baax moom daanaka moom moom la moo nekk koo xam daan képp koo xam ne yaa ngi koy xalaat rek moom moom moom da nga mucc jël sëñ bi daan di ko teg suñu kanam di ko xalaat ci lépp nag lépp loo xam ne dal nañu ci àdduna rek ñu fàttali ko sëñ loolu daañu ko defee danañ mën a muñ danañ góorgóor fii moom bés bu neex la alhamdulilah rabbil alamin yàlla lañ ko teewee ay déwén bëree bëri kenn bañ maak ñu ñëw ñëpp yàlla nañ yàlla indiwaat ci barke Seydina Muhammad waaw am nga mbirum sëriñ Touba moom lépp ci xaj waaw sëriñ Touba est te soo xoolee ni xam ne dafa ala te sëriñ bi rek mooy Serigne bi màggal bi moom macha allah saa su ne rek dañ ci am mbégte ak contentement saa su ne ak mbégte ak contentement di ñaanal képp nga xamante ne da ngaa màggal si lépp loo si fas ak loo ci yéene rek balaa nëgg ni déwén yàlla faj say soxla sëriñ bi sax fu ne jóge fu ne ñu ñëw fii ngir safar bi yàlla nañu yàlla defal jàmm lépp luñ fi ñaan yàlla nañu yàlla di barke Seydina Muhammad ci barke Cheikhul Khadim bi nga xamante ne moo ñu yëkkati ñun ñëpp ñu ñëw ci gam ci kii bi safar bi yàlla yàlla mun na lépp yàlla ko yàlla def ci barke Cheikhul Khadim neex na sant nañ yàlla bu baax mbooloo mi bëri na ñëpp a ngi fi sëñ Touba ñooñu ko jaral yàlla sëñ lépp luñ fi ñaan daal ñu ngi ñaan sëñ ba wasaale ko ci àdduna ci barke Cheikhul Khadim